asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk sénégalais yi nuyu naa leen te di leen te di leen bëggee di leen ñaanal jàmm yàlla na am jàmm ak fu waay mën a nekk ci Sénégal rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli waa sama gars yi partagé partagé ngeen partagé mu yaatu ma ñëw waxtaan ak ndawal Sénégal surtout yéen ndaw ñi waxtaan wi tey yéen a ko jagoo waaw may wax tamit ak waa ëhlu yeeg ëhlu ngeen am yërmande ci askan wi ngeen xam ni yéen ay sénégalais ngeen même boo nekkee mburum làmb wala nga nekk ak footballeur wala nga doon ab karatéka wala nga doon ab bazoka jàppal ni tamit doomu réew mi nga ëllëgi réew mi ak luy jëmale réew mi kanam jàppal ne yow da ci war a participer wala nga nekk musicien loo mënta nekk yaa xam mais li nga xamante ni sii dafay jëmale senegal kanam yow da nga ci war a bokk luy guddeel senegal yow da nga war a bokk ci ñu koy xeex dama leen di laaj lan mooy ndayu lépp loo xam ni luy tàddeel askan wi rek la askan wi ci ñi ñu gën a gëm ña nga xam ni fa leen gën a jëm yow ku ci yàlla may tur ba nga nekk mbërug làmb yaa ngi saraxe askan wi pourquoi yéen sénégalais dama leen di laaj yéen africain pourquoi heure boo leen demee ba ay nit topp seen ginnaaw maanaam ngeen di fowee doomu aadama yi quoi loo leen di def nit ñi bëgg ko rek nit ñi xërtal ko rek ngeen jaare fa politique pour saraxe sunu askan diine gaag làmb jaag way baag lépp lépp lu am rek yéen a ngi sëmbaxtal ak mbon ci askan wi daal pour luy guddel askan wi daal yéen xanaa doo leen ay sénégalais loolu laa leen laaj ci seen ji laa ñëw nag watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri seen mbokk la Medoune Diop watawaasaw bil xaq xëj na tey su may wax ci làmb man nit waroon na ñëw tic sama làmb ne ma saa yi waroo wax ci làmb lu tax ki nga xamante ni si maanaam mooy bombardier bu naawee ma naaw bu naawee ma naaw bombardier yaayu bom papay bombardier ak sama yaay ñoo bokk benn yaay buleen jur kon sama mag la mais Sénégal man dama ñëwul ma teg ay mbokk Sénégal sama mbokk bu ma mere ci wax dëgg ak li nga xam ni jóg nañ pour xeex sunu réew yaa xam nga màtt sa bakkan ñun du yaay bu ñuy téye du baay bu ñuy téye du xarit bu ñuy téye dama ne leen Macky Sall mi wa rabbil kaaba buñ bokkoon ndey ak baay man maay bokk ci ñi koy njëkk a fekk pale duuta mbaay ko sànni ko fële ñun luy taareel askan wi ñu dañ koy bañ dañuy lànk kon xam ngeen ni kon su ma waxee ci làmb kon bu fekkonte ni da ngay seet say mbokk wala ngay seet leneen wala ngay wax pour lu neex nit ñi wala ngay nekk fii di raay doomu aadama yi wax dëgg yàlla kon su may wax a wax kon bay ba ci kon làmb kon war naa ko arrêté quoi waruma wax ci làmb kon waruma wax ci làmb ndax dama am mbokk boo xam ne sama sama sama sama mag ñu bokk benn deret bu ñaawee ma naaw muy bombaar ji yaayu bomb papay bombaar ji ak sama yaay ñoo bokk benn ndey kon mais ñun dëgg ñun moo ñu tax a toog ci senegal fii yéen waa ëhlu làmb yéen laay waxal bàyyiwuma kenn yéen ñëpp laay waxal benn dinaa ko njëkke ci ñoom Gaston Mbengue ak kii di Balla Balla Gaye yow moom du ay question ay farandoo wala dara dama la yow du ay question ay far nit wala dara mais yow Balla Gaye yow moom koo bëreel yàlla na nga daanu ndax mbër bu gën a doon système politicien ci mbirum làmb yi yawa mbër bu gën a nekk politicien ci mbirum làmb yi yow mbirum politique nga yow xam nga ni quatre combats buñ ko jëlee ñu waxal ko yow Bombardier yow kii yow yow yow Balla Gaye politique la lu leneen heure woo leen jógee bay tëgg seeni làmb yi wala lenn rek maanaam léegi yéen da ngeen di bàyyi ba dara xew ci dëkk bi man looloo ma gën a métti Sénégal fi mu toll nii. waxuñu leen làmb dafa xaram waxuñu leen ngeen bàyyi mais làmb ni ngeen koy defee dafa xaram seen làmb ji bëri ay fen bëri ay fenkat balaa maa dee ñoom salbendog ak ñoom kooku booy boobu nu tudd xaw ma lan nekk fii ku ci nekk ñëw teg seeni analyse seen analyse yooyu ñu ñëw yóbbu ko ci côté njabar dañuy ñëw jàngat nit ki jaa gis ni mbër bii mu ëpp forme wala dara léegi ñoom ñu ñëw ñu jël seen làmb ji ñu teg ko ci ay analyse boobu ñu ñëw naan njabar kii naan kii mooy daan kële mooy daan te yàlla mooy daan seen làmb yi seen buhaaba yi ngeen ci boole loolu bokkaale yàlla la ngeen xam ko bu baax a baax seen soow yi nga xamante ni sii yéen a ngi koy jël Bombardier yow laay waxal ginnaaw yow dañoo bokk ma teg ca Balla Gaye ma teg ca Modou Lo ma teg ca Eumeu Sène ma teg seen yëfi dof yi ngeen di def seen soow yooyu ngeen di xëppoo doomu aadama yi ñu ngi xiif ba bëgg a dee jox leen ko sénégalais yi seen seen buxaaba yooyu nga xam seen li ngeen a jël di ko def ci ay sëriñ mën ngeen xool dëkk bi maanaam bëri na futaa futaa yële yéen a ngi gis affaire inondation xaw ma la nga koy waxee am ñu bëree bëri seen kër yi taa am problème yéen mbër yi làmb yi jël seen xaalis boobu ngeen jënd ci ay pompe pompe yooyu ngeen ci jënd mu jariñ réew mi ngeen def ko sarax loolu mën na tasa ngeen daan seen buxaaba yi daanut kenn seen bu buhaaba yi moo daanu kenn man li ma ci metti ci làmb ji mooy Sénégal yow balaa ngay fo bëre leen ut leen seen arène ngeen bëre mais nit ki balaa ngay fo nga am loo lekk loo naan ñun ak mbuumu jaam ci la nekk ñun ay jaamu tubaab la ñu takk ñu jaam nañu gore ñu jéem a fexe ñun ba sunu réew yàqu-yàqu yu fi am heure bu ñu leen demee ba leen tëggal làmb rek coow coow lu rëy moo am gasoo mee nga seytaane bi ñëw daal di tëgg làmb ja su ko tëggee pour lan pour coow li fi am ñu war ko lijjanti borom xam-xam yi war a toog ñu waxtaan ci ñu def ko détaillé ci réew mi lu ñu bokk ñu waxtaan ci pour loo xamante ni si pour njariñal askan wi mais pour tënk xelum kii léegi làmb ji bu paasee li ma ci gën a métti yéen seen pétrole seen mboq seen dugub nit ñay dee la ci dëkk bi dara méttiwu leen ci yéen gone yi yéen ñàkk jom youtube ba nga dugg ca damaa dugg ci youtube ba ndax ñun ginnaaw ñun ay waxkat lan yàlla nattoo ñu wax il faut que ñuy xool lay xew ci réew mi pour mën a wax ci réew mi léegi nga dugg ci YouTube ba dama ne la bun bun bun génnee léegi benn mbir wallahi bu ñàkk fayda ñu wane benn bombardier bu taxaw ñu ne ko loo añee mu ne ndambe laa añee nga gis booy ya partagé ko fees dell ca YouTube ba fees si dell ñii toog di leen waxal seen njariñal askan seen réew lu leen jëmale kanam boo xoolee lëmbërum làmb ba di am keneen du ko am léegi mbëri làmb yi léegi lan la ñuy jooy fi mu toll nii li ñuy jooytu mooy comme léegi daal supporters yi léegi ñoom na ñuy ñëw léegi bu ñëwee léegi ñoom ñu participer ci ñu ñu ñu jënd bee jënd ay affaire jël ay kaar ak yooyu yéen supporters yi barki alxuraan yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk fayda bu fekkee loolu gëm ngeen ko yéen ñi ngi laaj téeméer téeméer ndax ñun ay jaam lan mbuum ak jaam nekk fi ñu soxla ngeen cotiser ci téeméer téeméer yi nga xam ne Ousmane Sonko laaj na leen ko. téeméer téeméer yooyee ñu leen laaj téeméer téeméer yooyu xam ngeen pour lan la ñun dafa am ay politiciens yu ñuy jiite yoo xam ne maanaam borom alal yi nga xam ne dañoo fas yéene fawee askan wi pamté pamte askan wi ñooñu ñooy jël seen xaalis pour joxe pooju picc suba ñu am pooju ñay tubaab bi ñëw def ci xaalis pour boo faloo pour ñu gën pour tubaab gën fi yaatu ñu takk ñu buum ak jàmm Ousmane Sonko woo leen ne leen yéen sénégalais loolu ngeen def ku nekk téeméer téeméer téeméer yooyu pour léegi ñu mën a kii nga xam ni nekkul pour Ousmane Sonko pour Sénégal la pour loo xam ni après ñun ñu mën a def sunu élection bopp am sunu kaaru bop loo xam ne ñun Sénégal ñun ñoo ko kiiwal suñu bopp ken du ñu takk jaam kenn du toog di ñu imposer naan maa la jox xaalis maa la jox peeji pour ci force danga may jox pooju ñay pooju ñay boobu ñuy jox politiciens yi. di leen jox ay téeméer téeméer jàpp leen ni pooju picc la boo xam ne pooju ñaay la ñuy yaakaar ci yéen tubaab continué du ñu notaat du ñu moom suñu réew bu ngeen bëggee arène nationale bu baax bu rëy ñëw leen seen téeméer téeméer yooyu ngeen di cotiser ci làmb ye di dagg bee ngeen ñëw cotiser ko ba Sénégal defaru ba pare après ngeen soog a bëri bu leen neexee ngeen bëri léegi nag seen bëri bi lu ci nekk mooy seen dof-dof lu googu ngeen bàyyi ko mbëri doo leen ay nit dinañ fi dóor mbër mu dee man maa leen ko wax nit yu nite yëpp ñu def leen comme ay comme ay mbaam nit yu nite yëpp bu ñuy bëree pour maanaam xam nga ñun askan wi ñëpp leen yërëm ñëpp même mbërum làmb ba même ñëpp leen yërëm yéen ba ne askan wi yëpp fi nit lañ bëgg ñu koy def ngeen sol sax ay gants amul benn combat bu mel ni seen combat làmb dof yi ah, ngeen xam ni dañuy ñëw futti ñaari punkal ñu ku kenn du sol gant di ngeen fi dóor nit mu dee loolu moom man maa leen tax dem leen rek di ngeen fi dóor nit mu dee te bu deewee du tax sax ngeen arrêté ko yéen ay yan nit ngeen takk ut leen ay gaa ngeen boole ko ci seen làmb ji ngeen boole ko ci seen làmb ji te làmb ji seen politique bii nga xam si booy làmb bu jeexe mbërum làmb yi ngeen gis yàlla xam na ni namuñu dara ñu daan leen nammuñu dara ñu ñàkk leen daan nammuñu dara Balla Gaye mais yéenay toog di ko naqarlu mais wóor na ma ni dara métti ko tus métti ko ci seen ci seen defet bi ngeen di wax ni di mbëkk mii rek ay léeg ay booy dee ci yéen doo leen dee mukk ngir senegal doo leen dee mukk lu ñàkk fayda rek moo leen di rey Wally Seck fekk na benn kele fekk ngeen daanu xam dee Youssou Ndour yuuxu na nga crise fekk boobu ña ngay rey sa ndey di rey sa maam amuloo loo lekk amuloo noo naan taxul jaruloo la seen làmb ji yéen suñu àq moo leen dal dégg naa ngeen ni jooy naan seen làmb ji maanaam deret yi moo bari mais seen làmb yi faw deret yi bari ndax mbirum saytaane la nekk ca kii ba ay baxaaba ëmma seen dégg naa barki demboo njaay dafa sulli bopp yaayu Balla gay xaw ma xaw ma Balla Gaye moo sulli bopp yaay ëmma seen koo leen yàpp ci seen baxaaba yi mbërum làmb yi seen njabar gu bon gi moo tax senegal ba li fi ñu toll léegi miir yi ñu ngi ko tabax mu kii ci armeer ya armeer ya ca biir lanu kii miir ya yëpp ñu sonn xiif nekk fa bu ngeen leen joxee xaa ñu suli bopp yaayu jàmbur jox leen ko wala bopp baayu jàmbur ragal leen yàlla bu rabbi subhaanahu wa taala mbokk yi am leen fulla mbokk ndaw yi am leen fayda mbokk ndaw yi newuñu leen làmb bàyyi leen làmb ku mu neex seetaanal làmb ku mu neex seetaanal football ku mu neex defal lu la kii mais na tegu ci yoon làmb bi politique moo ci rax ndax problème bi mooy waxtu yi tëgg làmb ñun arrangé wuñu heure boo xam ni coow day am ci dëkk bi tey war nañ jàpp Bart ñu programme def le premier lépp programme la lépp programme fu dëkk bi demee bay tàkk ñoom Macky Sall mi ak waa kër nga xam ni ay tojange rek lañ def buñ paree seen tojange dañ koy natt ne mois sangam danañ def tojange gi tojaange gi buñ ko defee mois sangam ni ñuy tëjee làmb nit ñi sénégalais làmb lañ bëgg damay tëgg làmb Balla gay nga xam ne stade ba day fees dell avant combat ba Balla Gaye dem na na ji dëxin la lekk mu dem France xool leen ñëwu Balla Gaye ba face à face ba après lamb ja commentaire ji coow yu ñàkk fayda yi lii leen leen bëgg lamb ji amalul njariñ ak njariñ lañu amul amal na njariñ mbëri mbëri mais yéen supporters yi benn njariñ amul ko Sénégal kañ ngeen di am fulla ak fayda ni ngeen toppee sport ak ni ngeen gëmee sport benn tubaab gëmeewu ko ni tubaab bi sport du leen teree liggéey tubaab bi sport du leen tax ñu kii seen intérêt tubaab bi sport du tax ñu ñëw bay dem ji jaamu nit mais da ngeen a utiliser loon seen xel yi ay jël ci sport bi ay ballagay ballagay bu demee tey ba ballagay yow moom kooy bëreel yow yak yaaw jaal ngeen di bëri sax ku matu yaaw jaal daan ndax mbërum politicien nga mbërum système nga yow mbërum mbër nga boo xam ne mbërum système nga ku seetaan stade ba rek xool làmb ji ni mu demee sax ñu xam ne mbërum système nga yow gars yi yow lañ fi bëgg a teg yaay système bi boo xamante ni si pour nga fawee askan wi waaye doo ci am dam suñu àq moo la dal sunu àq moola la dal yow ay nekk fii ay Balla gay sol njaxasam jékki-jékki fii di yalwaan Balla Gaye yow ab yalwaan kat nga yow bu safar bu 18 safar jotee Balla gay taxaw fee di di yalwaan di ki euh, di di di jaal ay naan barke Serigne Diou barke Serigne Diou lii war na leen war ni tamit dëgg dëgg dëgg yàlla xam na ni Serigne Diou Serigne Diou nekkul woon ci làmb ja te seen làmb ji ngeen xam ni Serigne Diou yoonam nekk ci sëriñ si fi nekk di leen jàppale ci làmb ji bu dee seen sëriñ si ñor seen àjjana yor seen kii Balla Gaye 18 safar nga nekk fii di maa jàll di yalwaan yalwaanlu pour digal booy yalwaan sëriñ Touba diglewul yalwaan maam Alaaji Maalik diglewul yalwaan ñaq lan la digal mais sol fii dem yaag sa rak ak sey kii ngeen toog fale jël sa kees di yalwaan di di maa jàll Balla Gaye yow ban maa jàll ngay def yow yow di ngay maa day maa jàll yow yow nga nam dara nga naan màjjal yow nga war a saraxee naan màjjal léegi pour nga def ñàkk jom ci booy yi Balla Gaye Macky Sall lan lay ut pour ànd ak yow ci élection ya yëkkati sa loxo Balla gay dee loolu lan lay signifié li muy signifié mooy mbërum système nga mais sunu àq moo la dal yow yow yow Balla gay góob nga amati ndam ak képp koo xam ni nar na la samp nga nekk fii pour toroxal askan wi ay politiciens rek ngeen di tagg yéen mbërum làmb bu ngeen nekk ca làmb ja li ñuy def mooy lu ñu amalul njariñ di bëgguloo di jéem a bëgguloo gone yi ñoo xam ne amuñu njariñ maa ngi sant maire sangam maire sangam booba sa waa gox bu nekk foofu bu dee am ngeen fulla am fayda ña nga naan maire bii liggéeyu tuste dëkk ba dëkk bi ndox ndox bi taana maire bi liggéeyu ko maire bi gisuñu ko dara dëkk bi amuñu xëy amuñu gont kontaanuñ ci maire boobu maire boobu ngeen di tagg yéen mbërum làmb yi député sangam maa ngi koy tagg maa ngi tagg ministre sangam maa ngi tagg kii système bi rek ngeen di tagg seen làmb ji làmb saytaane la bu la ñu fonto seen làmb ji du ay bëre comme bu njëkk ni ñi di bëre nii comme na ko ñoom màng de doon defee si ay jamono bokk laay wax ay ñoom duubale rek seen bëre yooyu nga xam ne dañuy ñëw bun bëree fo après ku daan ki nga ku gañe sa saako ceeb même bu doon ay millions lañ ciy gañe sax loolu mais seen làmb ji système la. seen làmb ji système la gone yi digg doomu leen te ngeen utiliser seen maan watawaasaw bil xaq watawaasaw bis sabri ñun yaakaaruñ kenn ndayu kenn nenuñu boole koog ñun senegal lañ teg suñ kanam ay mbokk ak frère ak ay lepp dara ñun senegal lañ jël teg ko kanam seen làmb ji ay tappale kase la kiy wax ak yéen nii frère Bombardier la man mii mii duñ jóg watawaasaw bil xaq kon xam ngeen ni kon kon Bombardier mu gagné. gañe Balla Gaye man dama ci war a def ay félicitation ma war ci kontaan war a kii mais seen lamb ji dafa maa intéressé wu intéressé wu ma ndax ñoom ñii ñëpp muy Balla Gaye muy Gris Bordeaux muy Bombardier woo muy Modou Lo woo da doon dawal saret Gris Bordeaux xaw ma sàccaloon xaw ma fàqmaan Balla Gaye de xaw ma da doon gens xaw ma te ñeneen ñi xaw ma ay napp lañ doon defar leneen lene ñoom ñëpp ay pauvre lañ woon yoruñu woon ñaari salaamaaleykum bu ñu demee tey ba mën a tabax seen immeuble nit ki lan ngay ut pour tedd ci àdduna nga mën a tabax sa immeuble mën a yor sa 4x4 mën a yor sa oto ñii amuñu defat ci làmb ji mais yéen ñii lan yéen supporters yi laay waxal ngeen am fulla am fayda yéen ngeen jéem tabax tabax ñi mbëru làmb yi yóbbu nañ seen nday yi màkk mbëru làmb yi am nañ seen kër yéen supporters yi ñaari salaamaaleykum nekkul ci seen poos ñaari dërëm ñu leen di fooyee ci système bi làmb ji système la kon dama ni leen ngeen lijjanti seen bopp ngeen jéem a yóbbu seen nday màkk ak seen i baay màkk mbër yi ku ci daanu moo xam affaire la ku ci gañe gañe na ku ci gañe gañe na xam ngeen ni man sama position ni mu mel nii bu dul woon ak wax dëgg rek yàlla xam na ni kon duma duma du ñëw di féete woon yi du ma bëgg it sama mag mere ma wala kenn mere ma waaye ku ma mere ci samay wax dëgg yi màttal sa bakkan dama di leen système système la làmb ji système la làmb ji baaxut làmb ji li ci nekk ay bokkaale yàlla da leen di um seen làmb ji stade bi diggante kii Boy Sita ak ak ak ak kii ma gis deret gi ñu naan làmb gi dafa deret la seen làmb gi mooy deretal ndax xool leen stade yi ngeen tëggee làmb ji yéen yéenay golo ba dëkk bi di tàkk dëkk bi am problème nit ñi war a toog war a wax jàmmi dëkk bi amul loo leen def lu dul da nax askan wi deret moo fay génn nag boole ko yëfu saytaane rek Ama Baldé bu ñëwee indi a jaanam ca kii ba jël ay nen ay xurfa xuuxa yéen ay saytaane ku ànd ak ay saytaane ay saytaane ngemb la ay njabarkat seen làmb gi di yokk ay njabar yokk ay bëhaaba mbirum saytaane saytaane rek ka fay jógee ay tojon tey bopp ay déret yu tuur seen làmb jooju moo yay arrêté seen làmb jooju yéen da ngeen bàyyi war ka sax ngeen seetlu mais xool leen fi ñu tiggee làmb yi yow dëkk bi di tàkk ngeen nekk di nax askan wi di wor askan wi yàlla moo leen toroxal moo tax seen làmb ji xaw ma armé xaw ma kii bu doy te sax dama ni leen alkaati yi ñan lan yàpp loolu tamit dina fi ñëw seen lamb ji bu ngeen demee ban organiser wu ngeen dem seen lamb dara amu fa gendarmerie doy sekk bu boobaa dinan poñe alkaati yi wax ak ñoom pourquoi doxum ñaxtu bu amee wala nervi yi nekk fii di fonto sénégalais di rey sénégalais yi mosoo leen ko coow yéen est ce que ay patriote ngeen est ce que ay nit ngeen seen yoon nekku ci ay nervi yi nekk fii di dóor nit armée bi doyut pour mën a régler fukki nervi nervi lan moo leen réglé askan bi popel bi ñoo dem ba réglé nervi yi da gars yi dañ ne nervi bu fi dóorati nit dañ lay taal nervi bu fi dóorati nit dañ lay duma. ba nu paree loolu askan yi ñoo ko fajal seen bopp seen gendarmerie yi dañoo amul njariñ ak seen policiers yi bu fekkee ci làmb ja la ñuy jéem a kii sécurité ay doxum ñaxtu am wala dara am defuñu fa sécurité ba door fa ay nit bu boobaa dinañ wax ak seen armée bi. yàlla borom bi dëgg la bëgg seen làmb ji amoon njariñ mbër yi nekk leen ay patriote nit dangay bañ da ngay ni gedd làmb gasoo meng ne leen ab làmb dafay tëgg làmb bu nee dafay tëgg làmb mu koy tëgg ci instant boo xam ne baaxul ngeen bañ mais da ngeen di saraxe askan wi da ngeen di saraxe askan wi mbokk sénégalais am leen fulla am leen fayda ubbi leen seen bopp ubbi leen seen bopp li ma leen wax yéen ko gën a xam mbërëm lamb yi amuñu problème kenn yuru ci woon ñaari salaamaaleykum seen yoon ñëpp buñ demee ba am ci seen ñaari kër mën ci am seen oto wala am ci dara loola ñu ci am ñoom am nañ ci liñ ci am mais yéen amoo leen dara mbër lamb yi di leen jaral dee ngeen nekk ci stade di jamante nekk fii di dóorante ci ay supporter supporter yéen a ñàkk jom xool leen diggante si tàkk yi ay ñaari nit ay ñaari clan nekk fee waa Malika yi ñëw di xeex te yéen bu ñuy génn di xeex pour pétrole doo leen xeex bu ñuy génn di xeex pour gaz doo leen xeex bu ñuy génn pour lu am ful la ci askan wi di xeex doo leen xeex balaa ngeen tojante bopp rek benn cité boo xam ni dañ koy fay moo ni na mu dem jox ko ndayam ak baayam lijjanti boppam moo leen jaral dee mais seen ëllëgi réew jaralu leen dee seen ëllëgi réew luy amal intérêt askan wi làmb ji ñun ñoo gën a xam ne fi nekk lii système la lii système la booy leen côté làmb ji amul benn njariñ man maa leen ko wax Medoune Diop Watawasaw bi Haq wax ji ku métte nga màtt sa bakkan ay père garçon yéen fa xaw ma da nga doon feete sa 30 ans xaw ma mais fekkoon la foofu tàndar la parkaat yow moo jekk ci yow Cheikh Bara Ndiaye yow moom lii moom da ngay leeral dëgg rek ne doo yow ab wax waxkat nga boo xam ne sa làmmiñ moo neex yàgg naa la ko wax ma ñëw ci yow démb maa la gis yow ak Moustapha Gueye ci palaato boobu ngeen toog fa nga naan léegi yow amateur làmb nga ci làmb ngay ci làmb ngay ngay ngay ngay ngay kii daal daf laa ki mooy yéen ay lijjantikat moo leen gën amal say analyse na sa làmmiñ neex ne nga mën a wax sol sa garam bu rafet yor sa kurus Cheikh Bara lu ñëw nga analyse la yow amul analyse bii may analyse jëriñ ne réew mi combattant ñun lañ soxla soxla wun ay comme ni ngeen koy defee làmmiñ bu neex wax fii wër wala benn affaire suba kenn xamut foo féete yow làmb sax mooy sa place yow Cheikh Bara Cheikh Bara yow da a bàyyi ay analyse ci wàllu politique pour ndaw ñi mën la comprendre Cheikh Bara Ndiaye xaw ma borom def jël xaw ma borom def gis loolu yàlla kase la doo tus doo tus wax. Cheikh Bara Ndiaye démb maa ngi koy gis muy def ay analyse ci làmb ji nan la war a doxee stade bi nan lañ ko war a kii suba ñu ñëw gis la ngay wax ci jour combat pétrole bu pétrole bu loo gëm. looy sa xeex luy sa combat te loo ca def analyse ñu ne la est-ce que ñu ne la est-ce ay analyse ci làmb pour dëgëral làmb ci dëkk bi fi mu toll nii yow buñ la ci wowoon da nga war a bañ mais sa poos ngay lijjanti yow na sa làmmiñ neex rek na nga mën a yow moom dëgg lijjanti ko moom yow moom dëgg lijjanti ndax sa làmmiñ neex na mën nga wax xam nga nooy waxee léeg-léeg di nga toog ba mu yàgg nga dugg ci suq ree sa bopp Cheikh Baara wallahi maa la xam yéen ñii par benn benn benn benn li olof yi naan léeg-léeg ñu gis nit xam ko naan ko yow su ma doon soo doon jaar damay dem jënd sama soble sama kirmasi sama kaani ba pare soog laa soog laa rëbbi barke yàlla yéen leen doon ay jaar ma leen di rëbb man du ma sonn damay jël sama ndox ak lépp ba pare su pare paree naa leen jàpp lii lépp yàgg naa leen ko delloo sa mbokk sénégalais ay xeex mooy li ma leen di wax maanaam xeex yi da ngeen di ànd ak seen maan bu leen jiital ay sentiment ay kii man mii duñ jóg Watawasaw bi dàq su ngeen ma déggee may wax ni tey li may wax doon dëgg ak samay wax lu muy perte na perte naa perte wala lu wax ju du am njariñ def leen ndànk ci man nit kenn du topp doomu aadama topp boo xamante ni si topp boo xam ne mel ni benn yàlla ngay topp wala benn yenent wala koo xamante ni si kii na da ngeen may topp ci samay wax samay wax bu demee ba waroo def leen attention su ma demee bay wax lu leen di saraxe ndax njuumte mën na am ci nit nga def benn yoon ñu ne kii dafa juum mais dafa jum boobu bàyyi leen xel ngeen tekki baaraam deuxième fois ñu ne kii dafa jum activiste yi ku nu jóg ba di ko laayfal benn activiste laayfal ko ngeen jékki-jékki ñu jógaat laayfalaat ko te mosuñu ko laayfal jàpp leen ni kooku am na lu nekk ci moom ndax askan wi lu ci ëpp ci ñoom xàmmeewun ràññewun dee leen ñu déglu moo gën ngeen di déglu seen sëriñ si di leen saraxe dee ñu déglu moo gën ngeen di déglu seen promoteur lamb yi dee leen ñu déglu ñi nga xam ne ñu fenn ci dëgg lan far ñooñu ñoo leen ëppal solo yéen njariñu senegal ndax senegal feni moo bëri koo xam ne demeewul benn parparloo sunu classe gi nga xam dañoo tëddeeg njaaxaanaay Sonko bu defee dëgg ñu ne ko Sonko gonga Sonko bu wàccee yoon bu ñu tulli ko sànni ko fële sunu classe gii ñun ñooy senegal ñun activistes yi tey ñun ñooy Sénégal ñun ñooy ëllëgi Sénégal ñun ñi nga xam ne ak bépp activiste nag ña nekk ca WhatsApp baak ña nekk ca feneen nag ñëpp xaw ma luñ mën a tuddee yi mais combattant yi daal laay waxal muy ñi nga xam ni sax donte sax ñaanguñu sax waaye seen xol ak seen gëm-gëm lii la am réew am gëm-gëm moo koy defar ab vision moo koy defar nit ki da ngay am gëm-gëm ngeen utiliser seen maanaam ngeen ubbi seen xel yi réew mi lu ñuy tardé nañ ko lànk moo tax nekkul ne dañuy wax ci côté bi bàyyi côté bële. utiliser leen seen xel yi ndaw yi ubbi leen seen maay ni xool leen ëllëgi réew mi ndaw yi xool leen li nga xam ne moo ñu taadeel ñu jéem a avancé deux mille vingt deux xaw ma lan léegi lan lan ngeen war a yéen lan ma war a nekk seen bopp xool leen li seen dëkk am senegal ci ay koom-koom waratoo leen jooy ay terre waratoo leen jooy ay hôpital bokk ngeen ci ñi gën a risque àdduna bi yéen mbokk sénégalais yéen ndaw yi ngeen xam ko li ngeen am ci seen suuf yéen ñi nga xam ni bu bu làmb amee da ngeen di dajale dërëm dërëm pour mën a dem stade di ngeen ko dajale ñaari weer wala ñetti weer man waxee combat ba pour ne lii ma mën ci dem stade xam leen ni am ngeen ci seen suuf réew loo xamante ni si mën na la arranger mën na arranger mburum làmb ba. ndax da ciy gis boppam nga gis ci sa bopp di nga dem ba nga xam ne boo di nga am loo jàpp nga xëy ci bu nga amee li ngeen bëgg suñu réew ñu ñàng suñu alal nangu li nu moom yéen booy yi di supporter di ngeen mën a dem ngeen sangu ba set ku ci nekk war sa woto ngeen am paas bu doy ngeen dem seetaane làmb ba ngeen paree dem seen kër te di nelaw amoo leen foo leen dëkk amoo leen loo leen lekk amoo leen loo leen naan xaalis boo leen yor dugal ko ci lu ñàkk fayda dama ni leen lan ndax joxe geen ci dërëm benn dërëm dërëm boobu nga ne tey naa dem xool lu may tardé lu may guddeel ma dajale samay xaalis ba mu kii mooy ca youtube baak ca lu mu doon ca lu mu doon nga man ci li may tardel gasoo meng ci tey Macky Sall teg ay problème am programme am ne xaar leen dat sàngam toog waxtaane ko ñoom gasoo Balla Gaye mbërëk ñëpp na ko Balla mbër ba yow yow yaay gérer pour wal askan wi yow Balla yow am nga tur léegi kaay kaay kaay ñu dugal ci système bi naan naan di témoin le premier janvier da dañuy jàpp Guy Marius Sagna wala le premier janvier dañuy jéem a jàpp Ousmane Sonko wala le premier janvier dañuy jéem a jàllale kii góor jigéen benn loi góor jigéen déglu leen ma de le premier janvier dañu war a jàllale benn loi góor jigéen lu xaram ñu ne moom la ñuy jàllale mais buñ ko jàllalee Sénégal nag dina bëri coow. ndax xale yi kat dina jóg bu nu jógee coow li dana bari lool xale yi dina doxum ñaxtu dina kii xale yi nag lan moo mën a tax pour ñu fatt seen xel naan seen maayen léegi Gaston dangay ngay tëgg ki nga xam ne boo bëgg nañ leen mu Balla Gaye nga xëcc fee benn bombardier wala nga xëcc fee benn Modou Lô pour tëgg ko làmb ji boo ko tëggee boo yi bu nu waree seetaan benn Médoune Diop ca YouTube ba wala ñu seetaan keneen koo xamante ni si ñi ngi wax ci Sénégal mboq baak dugub baak wala ña ngay wax ci affaire góor jigéen ñi pour léegi dañuy fatt nopp booy yi nga xam ne booy yi làmb ji moo leen gënal fo bi fo bi ni mooy Balla bu demee France léegi nañ ko dem ñu topp caméra yi ci France Balla mi ngi entraîné Balla mbaxal la lekk tey lii la lekk léegi booy yi léegi nekk foofu léegi concentré wu ca loola buñ jógee foofu signé konaat si si signé kii ba léegi boo yi Balla da koy daan da koy caxabal da koy kii loo xam ne dara wóoru la lii xew lépp ma ngay xew ca biir làmb ja léegi nag booy ca loola la nekk di wejeg wejeg léegi jour ba nga xam ne coow lu rëy la am na ca la ñuy tëgg làmb gi nag buñ ko tëggee booy ya war a dem jox doxam ñaxtu booy ya làmb ay fo ak lu leen guddeel Balla Gaye moo leen gënal seen nday moo leen gënal seen baay Bombardier moo leen gënal seen yaay moo leen gënal seen tante Eumeu Sène moo leen seen maam ñoo leen gënal seen zircon ñoo leen gënal seen lépp boo yëpp dañuy fàq dem ca làmb lii mooy système làmb ji mbokk ndaw yi ndax ñii bëgg nañ réew mi ndax ñii bëgg nañ ëllëgi mi utiliser leen seen xel yi watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr utiliser leen seen maayani booy yéen ku am xel Sénégal li may wax ak ma koo xam lu tax ñuy gis ay activiste léeg-léeg ñu dugg fenn ñun ñu bañ di xeex ak ñoom ñu duñ ay dof de ngeen bàyyi ci xel duñ ay dof ndax problème bi mooy dañoo xam li système bi nekk senegal moo tax ñuy jóg di xeex moo tax ku ci dem léeg ba nga xam ne am na tur ñu ci baree bari si ñoom léegi pour ñu lijjantiku nan dugg bu duggee ci riiréeral askan wi lu amul njariñ askan wi dañ leen di jox xaalis da leen di fay dañ leen di fay ndax askan wi luy réer ñoom làmb ji yéen affaire làmb ji yéen ñii dañ ciy gañe gañe gi mooy day yàq seen temps gañe gi mooy ci foo la leen di yóbbu gañe gi mooy doo leen xalaat affaire réew mi gañe gi mooy doo leen xalaat ëllëg gañe gi doo leen xool yéen li leen di jar yéen ak li ngeen war a xeex loolu la ñuy gañee moo tax loolu lépp ñuy teg yëpp xam nañ ko ay programme rek la tëgg contrat baak du signé contrat baak kii dem na fële ma nga France ak ma nga kii ak lépp jékki-jékki kii benn euh, soxna si mbër si jékki-jékki loolu lépp ay fola yu leen di foyee mbokk ndaw kon ku bëgg a dugg ci si bi Sénégal ku fi bëgg xaalis ku yeewu bëgg xaalis mën nga lijjanti sa bopp Cheikh Bara Ndiaye mi day lijjanti boppam nante la nante la xam nga ni analyse yi muy dofut du dof du dof mais nag ab nit ñi am xam-xam war a yërëm askan wi seen xam-xam ñi ngi koy def pour naan deretu askan wi seen xam-xam ñi ngi koy def ku ci lu waay am daal yow yaa ngi def pour nax askan wi sénégalais yeewu leen booy moo tax activiste boo xam ne bëgg na xaalis ku am xel Sénégal ngay dem ba wax bu ñu commencé la partage nga bëgg moo ni laax mën nga lijjanti sa bopp ci Macky Sall man mii su ma bëggoon xaalis ci seen sëriñ si ak makisal Sall wax naa leen ko dama koy am. billahi wallahi ndax ki ki ràññe xàmme kooku mooy mën a yàq ku dof ab dof mënut yàq Idrissa Seck fii ba mu ñëwee fii di yàq yàlla xam na ni ni ma ko xamee ci politique dellu leen samay laar ci ginnaaw ci yàq xeetu yàq yoo xam ne Idrissa Seck mi ngi leen di fawee allahu akbar mais boo koy wax duñ la dégg mais après da ngeen ci teg seen bët man leen Idi mi saay saay la borom xam-xam la de xam-xam wu rëy bopp naxekat dëgg wala yàqkat dëgg da ngay am dof mënul yàq kenn dox dof mënul nax kenn dof mënul dox ci maayanu kenn kon ñiy yàq ay boromi xel lan mais seen xel ci caay-caay lañ ko yóbbu ci lu bon yàlla da leen may xéewal xéewal ga ñu war ci mook xéewal léppayam rek ba ci xéewalu xaalis am na ñoom yàlla dina leen may xéewalu xaalis ci jaam yàlla mais lu bon lañ ciy def yàlla kii yàlla may leen xéwlu xel seen xéwlu xel lu bon lañ ciy def Idrissa Seck dafa bokk ci ñu mel noonu waxoon naa leen ko mais boobu démb ba nga koy ko mën a comprendre même cause la dee leen ñu déglu ndax li leen wax après da ngeen di dellu ngeen teg ci seen bët ca yi nee naa leen Idrissa Seck mii dafa doon koo xam ne ku muus la dafay ñëw xëcc sëriñ si nga xam ne système lan te jamono boo nee sëriñ si système ñu saaga la ndey léegi fa leen dem jaaree. ci jaarale leen foofu dem na sax ba di suufal màkk naan màkk ak bàkk pour rek yii lu leen neex pour fooye leen et pas mel ni Idrissa Seck am xel mën a waxuma leen jaay leen yéen de jaay seen sëriñ si sax mën na ko def gëmut seen sëriñ du Idi du Macky du Ablaye Wade du ci kenn mais xool leen fi fi mu leen jaare ci sëriñ sa la ñëw jaare leen kilifa diine ya kilifa diine yoo doon système boo xam ni mooy loolu koo ko wax ñu ne la sa waay diine ngay contre da bañ yoonu Bamba danga nga bañ maw yoonu Maodo da nga bañ système bi moo bon utiliser leen seen xel tey déglu ñi nga xam ni dëgg lañ leen di wax te dëgg mooy mujj nag ndax dëgg yëpp day day mujj tegawaat ci table bi ngeen teg ci seen bët ñu ne leen Idrissa Seck mi jubut Idrissa Seck mi gëmut Bamba gëmut Maodo nan la mën a nekkee Tijaan nekk paa yeewu ànd ak xelam maay nam dem ba nga xam ni léegi. mi ngi bëgg a falu bëgg nekk président xool système bi ku bëgg a jàllale demal Touba mu ñëw ne murit la foom yooyu mu ñëw jaarale ko ci Bamba même Balla gay li muy def nii ay sóobi kese la seen 18 safar yooyu ay système kese la mais loolu taxul nga daan yaa ngi nii daanu Balla ndam yàlla moo ko yor te seen wax yi dafa ëpp yéen da ngeen di ñëw mbërum làmb yi mel ni yéen a moom adduna bi mel ni yéen daal yéen a am doole yàlla wan ni leen yéen leen doole kenn du ci dara ci yéen ku ciy jaay doole di wane man mën waxoo dëgg yàlla moo leen di wan ay misaal yoo am xool leen seen làmb ji ni mu leen ko classé le yooyu est ce que waroo leen ci ubbi seeni xel nee nañ Balla Gaye moo fi mën Balla Gaye mi ne moo fi mën mu ñëw bombardier daan ko ñaari yoon te nee nañ moo de Balla gay mi ne moo fi mën mu dem ci Eumeu Sène Eumeu Sène daan ko ñaari yoon ñu ne ñu ne Modou moo mën Balla gay ñu ne Modou Lo moo fi mën Modou mi nga xam ne nee na moo fi mën Balla gay daan ko ñaari yoon Modou Lo mi nga xam ne tamit ñu ne moo fi mën Eumeu Sène ma daan Balla gay Modou Lo daan na ko ñaari yoon mais yii da leen di wan ni doole yàlla rek ko am kenn mënu fi kenn seen yii seen i waxe bopp la yoo xam ne ci wàllu àdduna dong war ngay jël yenn kii sax di ci teg ay nattaay ne dëggantaan lii jaxasoo na Eumeu Sène kenn mënu ko daan kii moo fi mën moo fi mën Eumeu Sène kenn ëpp ko doole moo fi mën a Sène dem ba Modou Lo pattal ko deux fois Modou Lo moo fi mën kenn kenn mënu ko daan kenn mënu ko daan Modou dem Balla Gaye pattal ko deux fois Eumeu Sène mi nga Modou Lo mi mën Eumeu Sène Modou Lo moo mën Eumeu Sène Modou Lo moo mën Eumeu Sène Eumeu moo mën Balla Gaye ba pare Balla gay moo mën Modou Lo xam ngeen ni seen liidu ay doole seen i ay kasaw-kasaw la ay ndamaki ay daanaki loolu mi ngi ci loxoy yàlla bàyyi seen dof dof lu ngi geen nekk nit mbok ndaw yi utiliser leen seen xel Idrissa Seck mii ma leen di wax nii bu mag a mag a mag ko xam ba mu demee ba yéen lu dem ba kalaate ci ngeen koy xam te ay nit dañ leen koy wax démb doo leen ñu doo leen ñu déglu utiliser leen seen xel te xam ne ñi ngeen ay kilifa muy kilifay diine muy kilifay mbëru làmb muy promoteur muy kilifay musicien muy kilifay footballeur gis ngeen El Hadj Diouf fan mi ngi ci Macky Sall muy kilifay jàkk ndax sëriñu jàkk ba nee na soof soosaat muy kilifay tarixa yéen ñoo ñëpp yéen peuple bi yéen walaakaane yi wala ma ne ñun yi ñun amuñu kenn amuñu benn farandoo ku nu yaakaar ku bëgg ku nu fonk ndax Gaston Mbengue lañ fonk ndax Modou Lo lañ fonk ndax Balla Gaye lañ fonk ndax Bombardier ñoom lañ fonk ñi ngeen fonk ñëpp mu waa ahlu lamb da ahlu lamb da leen di saraxe yéen a leen bëgg yéen leen fonk ñoom fonk ñu leen faale wul leen sax seen bopp lañ tal auguste lañ diine ga sëriñ si ñoom ñoo rawati moom ñoom moom ñoo ñu gënal sunu nday sunu baay gënal ñu yàlla bi bind. amaluñ ñu benn njariñ ñi ñi dàq saraxe ñi gën a bon ci askan yi mooy ñooñu. footballeur ba nu yaakaar El Hadj Diouf jàpp ni kii ndam la ci senegal am na jaloore mu ñëw di leen saraxe moom it jaarale ko ca ci kii ba. Wally mi ngeen yaakaar lu bon lu ñaaw lu bon lu sëmbaxtal moom it noonu wa kazalika balaa moo tëgg concert am lépp ay programme rek la booy fi ñuy jëlee xaalis. Sénégal kon ñun ñooy senegal xeex xeex yi ñuy xeex xeexu peuple la xeex pour ñu sonn la xeex pour ñu bëgg gis ci seen bopp la kon yéen ñi bëgg a gis seen ci réew mi seen bopp ñëw leen ñu ànd ñu xàccandoo dóorandoo lamb ja dem leen ci ndànk bu làmb jotee ku mu neex supporter Bombardier ku mu neex supporter ma seen mais na yem foofu na yem foofu bu mu leen jaral perte seen temps fii ngeen nekk fii ci YouTube yeeg YouTube bi boo leen di xool xool leen pour seen ëllëgi suba. ngeen xool leen tam pour tamit comme te mbërum lamb yooyu ay égoïste lan am falan yam yéen ngeen xool loo xam ne pour après tamit nga xam ne mën ngeen am sax stade bu baax mën ngeen dem ngeen xëy ngeen gont mais mbërum lamb yi Balla Gaye amul benn defet ban defet la Balla Gaye am ban defet la Balla Gaye am Balla Gaye xaw ma sàcc la woon xaw ma ndax mbëru lamb yi moom lu ci ëpp si ñoom la motloo danaan dawee li saret giri danaan quinze bombardier xaw ma lan mbokk daa foor naa ko tëb ndax moom man ko dara daraan napp yaakaar na napp joo googu moo doole xam na nga baal ma nag mooy loolu kii kii sàcc la usa xawma mooy beneen bu bàcc seeraas dégg naa sàcc la woon amul kenn koo xam mbërum làmb yi ay idol ñoo ci bëriwul teg bëriwul idol ñun ay nit duñu wax sax waxi nit ay ay ay nag ne duñ tëgg rek andi leen fii bismillah wasalaatu wasalaam ala nabi ma kii kii sàmmkat la mu xam nga ni kooku moom baal leen ma nag waxee ma côté sàmm quoi mais moom ci xare la yàgg tafaatin boo ko déggee rek xam ne kii ngandam kaw-kaw la ëmb seen moom ci booy këx dof yooyu la bokkoon baaboy taalibe yooyu la woon di yàlli ëmb seen magam pap ndaw fan sam laa woon moom da doon simb gaynde ay Salali Mohamad walaali ba Saka Dia Maka jaar ci kenn jaar ak mbëkk miir yi ay dof lañ bàyyi ma ñoon noonu Siteu moom ku ko ne jàkk ba tey xam ne kii ndibaala tukkatu yàmbaa la ba léegi giri tamit dégg naa day tox yàmbaa giri bërdu moom dégg naa day tox yàmbaa am na benn copain bu nga xam ne dañ bu ba muy suuroo ay booram lay tox ba ne tat bu ñëwee ci làmb ji di jaay perek ñii ban ay yan idole lañ dama leen di laaj ay yan idole lañ sunu mbërum làmb yi ku si ñëw après toog seen wax yi amul njariñ maa ngi sant sa bekkaay bismillah salaatu ala nabi la hawla wala quwwata illa billah maa ngi sant Béyamé moo may jox yàpp may lekk quoi di sant kii dibiteri kii Diouf yàpp la may jox may lekk dama entre ba ceene kenn du ma téye ay doon kii waxit dof rek du ngeen wax ay nit wala ñi ci nekk ni dañuy dem seen bopp te ay waxi nit la ñuy wax kalaasu Tyson gi moom da nga koy dégg xam ne kii benn nandite la xam ne ñëw na ba lijjanti ko ci bopp ndax xam na ne ay dof ngeen su dégg ay waxam déglu ay kéem da ngay xam ne kii kii dof kii nandite la yàlla xam na loolu nga xam ne kii dofut gis nga fi mu toll mi ngi nekk ci ay totalam moo leen tane sax ay lijjanti ay total fii lijjanti ay affaire xaw ma nag ndax dugg na ci politique wala waaye sañ na ko moom yéen mi ngi nekk ci affaire yi mais yéen mbirum làmb yi doo leen jéem a sax xool sax seen yeneen affaire yi lu amal njariñ réew mi ay bay bay yaa ngi fi ngeen dem bay yéen mbirum làmb yi yéen yéen ñi nga xam ne kii ngeen senegal yéen li ngeen mën a participer ci affaire patriote moo bëri xool leen affaire téléphone yi ni ñu yi ngeen xam te ay sàcc kasa lañ loo xam ne ñemewuñ ko Europe ñun moom lan ñuy def téléphone yi ku ci am 10 000 francs pour seetaan seen làmb ji 10 000 francs la doy ay weer wala da nga koy kii wala minuit par minuit ngay am ngay am crédit fii 10 euros nga ñëw doo manqué connexion ba keroog weer bi dee moom laay waxee ak yéen ci ci téléphone astafurlah dégg nga man di ay 7 euros boole ko da woote fu la neex ci téléphone doo fay dara loolu moom amut fay yen senegal orange ñëw di ñu sàcc fii yéenay publicité orange yéen mbërum làmb yi orange bi ñuy saraxe di sàcc sunu alalum réew Balla Gaye yow yaa koy yow yaa koy jox promotion. Yékini yaa koy jox promotion Modou Lo yaa koy jox promotion Bombardier yaa koy jox promotion Gris Bordeaux yaa koy yéen ay yan patriote ngeen laa leen yan patriote ngeen booy ya di ko fekk booy ya di ko mbalax booy ya di ko tulli te boole koog yéen seen connexion yi boo leen demee bëgg a seetaan làmb jël seen connexion yi di xuy xamaj bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax mbërum lamb yi bu doon bëgg nañ Sénégal duñ toog fii sax di def ay promotion ay ñoom Gaston Mbengue ci ay orange ay Tigo orange bu ko sénégalais yi jëndee yéen la Tigo bu demee ba am doole yéen la ndax yéenay dooleel France ñëw duñu sàcc te France loolu sañu ñu ko def biir France buñ ko defee biir France dañuy am problème comme nga ñëw yor sa kii boo xam da ngay sàcc 10 euros nit jox la ko nga mën a lekk 10 nga mën a ñaari junni connexion bi doy te ñoo ñu ëpp doole ñun luy jar France Sénégal téeméer la fa war a jar ndax bokkut sunu franc CFA bi dafa diis léegi après yow même crédit li ma leen wax dama ko xam de man Italie man li may chargé ci crédit yéen man maa leen gën a yombale yéen waa Sénégal ba pare sama connexion moo gën a baax ba pare damaa am loo xam ne du am limite te di euro yi sax du ko mat yéen Sénégal ngeen nekk foofu Sénégal nan la Sénégal mën a tolloog Europe France Orange bi nekk France waa France ak Italie yooyam ñi nekk France seen crédit doole bi mu am seen crédit yéen amu ko ñoom ñoo leen gën a moyen cher ci lu nu chargé crédit te boole ko seen connexion du dagg yéen seen connexion day xuy xamaj orange ñëw yëpp leen dugal ko ci biir dëkkam seen dëkk seen biir dëkk Sénégal di leen fawe mu seer di xuy xamaj boole ko ay taxi est-ce que ko fay lu jar a lijjanti la. lu jar a lijjanti la mbërum làmb yi ngeen di yaakaar di topp seen ginnaaw ñoom ñooy sol ay tisetu orange di promo di jox promotion koo xam ne day saraxa suñu réew di sàcc suñu alal réew nekk leen ay patriote gëm leen seen bopp Sénégal soxol moo jeex Sénégal ku xam xàmme ràññe yàlla xam na ni da ngay tëdd ba mu yàgg sam xol di jeex yow li lay métti méttiwu leen li ngay yëg yëguñu ko ña ngay nelaw sàngoo seen bàjj gone yeewu leen gone yeewu leen contre ñu làmb contre ñu sunu frère yi Modou Lo sunu frère la Bombardier sunu frère la Balla Gaye sunu frère la mais système lanu bañ seen système làmb ji wàññi leen ko bu leen ñu fontoo da xam mais boo waxee tam ñu ne kii dafa soxor ñun yaakaarun kenn ku dul yàlla ñun soxlawuñ seen dërëm soxlawuñ seen fukki dërëm mais liy sarexe askan wi seen seen publicité yi ngeen di def ragal leen yàlla ngeen xam li ngeen di publicité seen làmb yi tamit jéem leen fexe kon même bu dee ngeen amal au moins tuuti tuuti tuuti askan wi respect jël leen benn uude bu nekk Sandaga di taaba taaba yor ay daalam ngeen jël ay dallu uude yi naan dem leen kii dallu uude yi ngeen def ko ay promotion wala leneen ak leneen mais luy saraxe askan wi xaalis bi mën a jëmee boor rek pare ngeen pour def ko xoolaat leen seen publicité yi ngeen di publicité yéen lamb ji la li ngeen ñuy publicité lan la dama ne leen orange ngeen war a def seen publicité bu ne ay ngeen mais luy saraxe askan wi ñii buñ leen ne dañuy xeexal dëkk bi waxuñu dëgg waxuñu dëgg yeewu leen mbokk ndaw yi utiliser leen seen maan gëm leen seen bopp bu làmb jotatee nag balaa ngeen di dagg bee ndax jox ngeen téeméer joxe leen ko ci ci réew mi pour ñu buumu jaam gi mën a dog ñun bañuñu làmb ñun contre ñu làmb am na loo xam ne nag yërmande la ngay wax ci yi muy conseil loolu moom bu leen neexee ngeen def ko bu leen neexut tamit dóorante leen ba ba nit ki daanu dee loolu seen affaire la yéen a concerné mais dee leen sol ay gants mooy yëfi nit ay doomu aadama ngeen bu ñu leen jàppee comme ay bàyyi ma comme ay mbaam ngeen nekk fii di tulli tulli di tëyi tëyi sol leen gants di ngeen fi door nit mu dee dee xam nga ni ku bombardier bu dal dëggantaan ndokk sax yàlla sax moo leen nattu ba yéen kenn mënu ci dóor dóor ba dal yéen ñëpp nag cat ba cat muy bombardier muy Modou Lo muy Yékini muy Tapha kenn mënu ci dóor mais bu doon am ngeen boxeur dëgg ku mën a door mën a door fu porte yàlla xam ne am na fa boo ko dóoree ni day dee boo ko dóoree nit sans gant sans dara ak seen ki yéen benn nit bu nekk mooy fukki fukki mee dañ jóg ñun matuñu nit yéen ay géant ngeen macha allah senegal moom dañ yéen fu ëpp yéen seen coup yooyu ngeen jàpp ne yow Balla Gaye bombardier jekk bombardier bokk Balla Gaye dal ko ku dëgg dëgg dëgg ku frappe xam ni ñuy dóoree xam ni booy dóor du dóoru laaw nii rek da ngay def nii ba pare nga xam ne da ngay am fond léegi nga dem sa kii kii bi nga yóbbaale nii da lay may fond ngeen xam ni ñuy dóoree mais mbëri kenn mënu ci xeex kenn mënu ci xeex ñoom ñëpp dañuy sóob rek ñu naan ay xeexkat seen làmb ji bu amoon boxeur dëgg ku jàng box dëgg jàng xeex dinañ fi dóor mbër mu dee man maa leen ko wax dinañ fi dóor ndax amul gan ba pare seen dóor yi fépp ngay dóor foo door baax na xool leen seen yëf bu xaji yéen man man xamoo leen dara ay Balla Gaye xool leen xool leen kii ba mu dóoree kii mu daanu euh, Modou Lo mais gis ngeen fi mu yéen est-ce que gis ngeen fi mu dóor Eumeu Sène ay nit ngeen yéen pour combat bi kii daan na rek nu nit daanee baax na même bu doon luy rey nit mais doo leen xel danger bu ci nekk. Modou bu doon ku mën a dóor dëgg am dëgg-dëgg farap fi mu dóor Eumeu Sène ku moytu Eumeu Sène foofu comment lay dem dootul yeewooti day dee dee lay def loolu du ay doole de du ay mën a bëre de du ay mën a dóor am foom kenn du fa door doomu aadama dañ ko interdit mais yéen doo ay nit foo dóor baax na bu takk gan seen ay yëfi dof la yéen borom làmb yi conseil bi pour ci yéen la lii moom ci yéen la jëm seen dof dof du googu dem leen uti ay gants ngeen di bëri ay nit ngeen ay doomu aadama du ngeen ay xar seen soow yooyu nag ngeen yor nag maanaam di ko jox jinne yi nit ñi soxla nañ ko am na ñoo xam ne bu ñuy togg som bi duñ am soow buñ ca def am na ñoom buñ toggee fonde amuñu soow buñ ca def seen soow boobu sarax leen ko nit ñi ay nit ñu fi nekk di soxlam soow soow yooyu ngeen koy jox ay jinne soow yooyu ngeen ci am jinne ngeen jox jinne yi du ngeen ci am ngërëmal yàlla bokkaale yàlla la seen njabarkat yi nekk ci télé bi di fen rek it nañ bàyyi seen fen yi ay analyse la ñuy kii sénégalais di leen fowee ngeen naan kii am na xam-xam ngeen Pa Birame Ndiaye ni muy analyser ñaata ñaata làmb la Pa Birame Ndiaye analyser wax leen làmb ji nii lay demee fii lay mujj làmb ji mujj foofu ndax wax na leen ni baatin la wala mbóot la du baatin du mbóot du xam-xam dafa xam làmb xam ni mbër bii kii forme moom lii mbër bii kii ni mooy point forme léegi mu teg ay analyse am ñëw andi leen analyse teg léeg-léeg analyse bam am mu am léeg du am léeg mu njuy ko même seetlu leen seetkat yi léeg ñu ñëw andi leen analis ci làmb analyse bi leen indi mooy am léeg-léeg ñu andi leen analis ci làmb analyse ba du am mook analyse bu bàyyi Birame Ndiaye boobu ñooyam benn lañ mais du ay baatin du mbóot du def ko seet pour lan pour nax leen pour lan léegi ne leen am na ay kànnaar yu muy defee ay borom baatin la ngeen jox ko seen xaalis mu lekk ko seen làmb ji li muy yàq sax xamoo leen ko léegi nag léegi pour nax leen nax boobu tam feni yéen seen YouTube yi nga xamante ni si moo tax ma leen koy tere yéen yéenay ñëw jël njabarkat yooyu fenkat yooyu kazaab yooyu ñu yow toog ngeen leen di publicité di joxe seen numéro naan dañuy faj éméri dañuy faj biir bu daw dañuy faj ñàmbataan dañuy faj xuréet ah dañuy joxe wërsëg yow kuy toog fii di lijjanti sa bopp ci YouTube bi joxe sa numéro pour jox la xaalis boo doon maye wërsëg doo may sa bopp wërsëg koo yab koo yab léegi yéen ngeen publicité ñoo ñoo ñu am doole nekk fii di sànq doomu jàmbur yi est ce que xam ngeen nit la ñu sànq ci affaire ba ci ay fecc da ngay gis nit ki tànkam néewi ñu ne la yow saytaane moo la jàpp saanu ñu la xorom la wala benn affaire déedéet balaa ñu ko yóbbu hôpital léegi ñu ngi ko yóbbu ci njabarkat yi yéen daggul ngeen fi ay tànk. njabarkat yooyu ñu ko yóbbu tànkam néew ñu ne ko sa tànk bii dangaa génn ba nga génnee sa benn tànta moom moo ci moom moo jël nen def ko fa wala ndox wala am na ku ñuul ku xees ku gàtt koo xam ni tase nga ak moom te force fu nit moom <laughs> yooyu rek lay mën a kii léegi après ñu ne la lool la lekk say 1000 francs lekk say 10 000 lekkat say fukki dërëm takk la ay xaaw jox la ay ndox nga naan jox la ay mil nga sangoo ndekete yow sa sa loolu xorom dangaa xorom. xorom soosu ndeewi sa tànk sa tànk ba commencé nag di nëb sax dugg ca dem ba nga xam ni tardé na ñu dem hôpital ñu ne kii du ay affaire njabar moo ko jàpp kii dafa xoromoon tànk ba ba eggee foofu lan moo fay kii dagg rek tàppi dagg ñaata tànk jàmbur gen dagg moo tax ay fen akki i tappaleeki njabar ci li mu dugg baaxut ay kazaabun lañ leen tudde Cheikh Bara Ndiaye yow na gàcce nga ma dem nga sa place yamal ñu ci làmb ja yamal ñu ci làmb ndax yow lii ngay promo yow it yow it da nga borom analyse kat nga ku mën a xalaat nga mais Cheikh Baara indil naa leen fii ay waxam ma tegal leen ko Cheikh Baara day ñëw teg ay analyse de analyse am yam teg mu ne leen baatin la mbóot da koo xam ngeen ñëw ngeen jox ko seen moonin bu ngeen ko joxee seen moonin Cheikh Baara mu naa leen ba fen rek def xamut tus maag ma ma ay analyse la ko teg ba bee baax mais nag day day li jëntuk yéen ginnaaw yéen ku leen nax ngeen bëgg ginnaaw ay dof ngeen bëgg ginnaaw yéen ku leen fen ngeen bëgg Sénégal sax tey ma nga ca làmb ja tey fi mu toll nii Cheikh Bara boo bëggoon Sénégal Sénégal yëtti la nga nekk patriote am na émission yoom ko la ci woo da ngay bañ mais lan moo tax kaañ lan moo tax yow émission yi boo fa demee Cheikh Bara da nga am moonin da nga ciy gis sa bopp dawal sa oto xale yi dangal la ko fii nga lijjanti sa bopp naan de tenge laa la war dofoo jinna jàpp même sa wax ja na nga koy dégager sax yaa ko tey ni ngay kaw kaw kaw loo ca wax ja moom Mbarjé loolu yaa ko ci kii ndax loolu moo lay kii xam nga <laughs> day reelu sa émission yak Tafa Gueye ñooñu ni nga doon def sa analis <laughs> allahu akbar seen baara yaa saf xorom ni nga doon defee man dama xam nit di analyse man tamit <laughs> comme ni nga koy defee nii noonu laa lay analyser da mën a man dama la analyser yow. léegi nag après da ngay gis émission bi mu doon def noonu boo ko seetaanee moom ak ñoom Tafa Gueye yàlla gis ni Tafa mi ree bëgg ko jàpp ndax nam koy nam koy waxee moo neex. bi nga xool keneen ko bëgg ay ree bëgg na ko jàpp ni nga xam ne jël na ba tegee ko noonu quoi ko saf xorom nga ku mën a lijjanti nga sénégalais pire pire nga Sénégal nag lii lañ bëgg nag Cheikh Bara Sénégal yow lañ bëgg Sénégal dafa bëgg sénégalais pire daa bëgg ñu koy nax dafa bëgg ñu koy foye dafa bëgg ko koy fen dafa bëgg koo xam ne da ngay ñëw toog di jaay affaire star yor sa kurus sol sa garam bu rafet booy wax ca ba dafa am nooy comportement soxla wuñ koo xam ne da ngay wax nga ñëw sol ay mbaxane yu giri ko man wala jékki-jékki santel ko rek sol benn kii nii wala nekk ci néeg bu lëndëm da ngay nekk fu leer place bu leer nga sol costume wala nga sol benn grand bubu boole ko course course googu lan lay wut ci làmb jow Cheikh Bara maa ngi lay gis ma nga yow nga yor sa course course ko loo fay wér wirdoo ci dara da nga téye sa course nii yaa ngi téye course bi nii sa loxo yaa saf xorom di def analyse ca làmb ja la ñuy saraxe ca affaire buhaaba ya ca bokkaale yàlla ba ca lay saraxe askan wi wallahi yéen Sénégal demagoo leen ndaw yi ni leen déglu leen vrai activiste yi déglu leen ñi nga xam dañuy xeexal réew mi dugg leen ci whatsapp bi ngeen waxtaan ak seen morom yi ànd xel. dugg leen ci whatsapp bi waxtaan ak seen morom yi nga xam ne dañuy ñëw di dugal ci groupe whatsapp bi seen crédit foofu ngeen ko war a sotti mu amal leen njariñ seen morom yi nekk ci groupe whatsapp bi jékki-jékki génne affaire zircon pour ñu jàngat lan moo nekk ci zircon. seen morom yi nekk ci groupe whatsapp yi di génne affaire yoo xam ne doomu aadama da nga ciy di am xam-xam di xam lan mooy réew mi di xam li xew ci àdduna bi di waxtaan waxtaanu nit ngeen dugg ci groupe whatsapp yooyu moo gën ngeen di yàq ngeen di weccante xalaat ak seeni mbokk bu yàggee di ngeen fa jëlee xam-xam fii lépp lu fi nit xam da koo dégg wala mu jàng ko wala mu gis ko boo demee ci whatsapp ba ci yi ci ñi bëgg Sénégal di dégg di nga gis di nga xam man li ma xam ci senegal ci at yi ak bari li ma xam Sénégal ti at ak a bari loo xam ci samay morom laa ko xamee te ku moytuwul ci ñi ma ko xamee sax ñu ngi may déglu yu bëree bëree bëri ab zircon lan man damaa mës a xam turu zircon yàlla xam na ni zircon ba ma xamee turam ba Ousmane Sonko fëlee laa xam wallahi ci laa xam turu zircon mosuma xam zircon ku ma laajoon luy ko xaw ma ko phosphate mosuma ko xam mais doo leen lijjanti loolu ñu leen di tuddal ay xéewal ngelaw yu ñu yàlla jox doo leen ko lijjanti ay naaj yoo xamante ni si naaj recette la loolu ku la ko mosoon wax da daga naan mooy loolu mais lii lan ndekete yoo courant mooy naaj dama ni leen benn fanuk Jurbel vingt quatre heures de temps bu Jurbel courant ci ci naaj yor na weer Sénégal wala xaw ma at su ma juumul loo xamante ni si pour yéen seen courant yi da koy kamet doo leen di jënte loolu lan mooy coupé seen courant yi ndaw yi lu ko waral njiiti niraar la wala lan bëgg nañ ami courant doo leen lijjanti démb même bu dee démb tardé woon nañ ko xamuñu woon lu xew Macky Sall ba muy wax ci terre bi dama ko déglu rek sama xol di jooy ndekete yoo moom waxoon na Ablaye Wade moom li mu def nii waxoon na ko Ablaye Wade ko sa terre bi yàq la moom ba mu ñëwee triple li nga xam ne moom la kon kii kon xam na lu xew moom Macky Sall xam na bu baax a baax muy def moo tey li mu def daf ñoo yàpp ndax xamoon na li ba di wax ci affaire terre beeg yooyu waa léegi yow ndaw bi nan nga ci taxawee. ci Macky Sall mi ñu diggoon loolu man bokkuma ci ñu ko déglu bokkuma ci ko fal de ko lijjanti ma sax yooyu ay affaire politique yooyu mais yéen ñu ko faloon ana yan ndéggat ana yan jàngat ngeen am ci yooyu ci teer ba ci waxi Macky Sall yooyu mu wax ñu démb lii ba mu ñëwee tey lam ñu doon wax mu def ko ndax kon réew kon ay kàddu yu rafet moo koy defar ndax réew mi ay fen moo koy defar ndax réew mi day wax rek la mu wax rek ñu ne dañ koy fal pour loola ndax dañuy nekk taalibe politicien déedéet loolu lii li mu leen a jox njëggat gi ngeen ci war a am ci affaire terre boobu sama téléphone dama ko yorut fii moo tax njëggat gi ngeen ci war a am yow ndaw yi mooy da ngeen war a fexe boobu ëllëgee bépp politicien boo xam ni ñëw na toogati fi dafa am réew mi ci ay sart yu muy tëdd nga xam ni ku bëgg a yàq sax doo mën a yàq. loolu mooy seen problème lii mooy li nga xam ni loolu ngeen war a lijjanti mais nekkul topp si jëmm idée bu nit indi nice rafet na idée bu baax bu nit indi nice ngeen jàppale ko ci idée boobu mais léegi après bu toogee nan lan war a dund kii ba idée boobu am loolu du njiit ba moo koy def bu ko neexee mu changer idée mais yow ndaw bi sa pas-pas sa gëm-gëm ak sunu muus ak nin war a tabaxee réew mi kon tabaxinu réew mi kon lan war a lijjanti fii lan toll demagoo leen sama yi ngeen partagé mu yaatu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.